yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xadis boobu sayidna abi zar al xifaari ak sayidna muaz ibn jabal radiallahu anhu ñoo ko nettali ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ittaqillaha xaysuma kunt wa atmii sayiata alxasanata tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan tirmisi moo ko nettali jële ko ci ñaari saxaaba yi ñu wax mu jaar ci fam war a jaar ci ay càlla la <coughs> beeg ci moom mu ne na ngeen ragal yàlla foo mën a nekk na ragal yàlla foo mën a nekk ragal yàlla yëg-yëg lay doon buy nekk ci xol bu nit ki yëg ragal xam màggu yàlla xam sañ-sañam xam kàttanam mu ragal ko xam ne lu ko soob mën na koo jëf te dara du ko ci fekk mu digle tere teg koo dige lam dige lam digle mu teg ca ay ay dig yoo xam ku ko jëf mu fay la ko la mu tere mu teg ci ay daan yoo xam ne ku ko moytuwul bu la ko jéggalut daan ya mën a ci sa kaw kon nag nit ki nag ragal merum yàlla ragal mbugalam yaakaar yërmandeem yaakaar ngëneelam muy topp nag ndigal yàlla yi di bàyyi ay tereem kon yëg-yëg la boo xam ne la bu dëggoo ci xol dëgër ca la muy jural nit ki mooy day topp li yàlla digle kem kàttanam di bàyyi la muy tere muy loo xam ne moo tënk xeeti baax yépp rek mooy dénkaane bi nga xam ne moom la suñu boroom dénkoon njëkk ña dénk ko ñu mujj yi dénk ko xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy li nga xam ci lay ci lay mooy nattuwaayu ngëneel ak ku mbaax ak ak daraja fa moom ki gën a tedd fa yàlla gën fa ëpp daraja ëpp fa wàccuwaay mooy ki gëna ragal yàlla ci ragal yàlla la jaam bi di jubóog boroomam ba bu jëfee mu nangu ko bu ñaanee mu may ko bu juumee mu jéggal ko kon moom moo am lépp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax na nga ragal yàlla foo mën a nekk foo mën a nekk mooy boo wéetee ak boo ko Euh, barab boo mën di nekk ak jamono joo mën a nekk nanga nga na nga bàyyi xel ne yàlla mi ngi ànd ak yow di la gis di la dégg di xam li ngay xalaat te waxoo googu rawat na la ngay jëf nga di ko bàyyi xel euh, di ko wattandiku di ko moytu loolu kon moom mooy li nga xam ne moom la xadis bi njëkk a wax mu ne nag boo defee wa atbi sayiata alxasanata tamhuha boo defee ñaawteef boo defee bàkkaar euh, na nga daal di tuub tuub gu sell te jëf-jëf ju baax teg ko ca bu ko defee jëf ju baax jooju nga ca teg mooy far jeexee da xam ne moom la ñaawteef wa juróon ñaawteef day day jeexital ci xol day tilimal ab xol di ko muur boo tuubee tuub gi sax defee jëf ju baax teg ko ca nag jeexit jooju nga xam ne moom la ñaawteef fooy bàyyi ci xolum nit ki ah, day far mbind mañ bindoon ñaawteef fa ca jëf ya moom itam boo tuubee tuub bu te jëf jëf ju baax teg ko ca jëf ju baax jooju day tax ñu far mbind mañ bindoon ca téeréb jëf ya bala ca ñaawoon ñu far ko ah, kon loolu moo tax sëriñ bi wax ne ci masaayu kii daa ne bul xeb dara ci ñaawteef lu mu tuuti tuuti na gaaw tuub ko euh, te na gaaw jéem a jëf lu ko far tudd na ci li ñuy fare bàkkaar maanaam boo jëfee jëfu ñaawteef la nga koy fare ci ay ci ay jëf yiw tudd na ca bari loo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak di jóg guddi ginnaaw bu nit ñi nekkee di nelaw guddi naafi la ak jàng alxuraan ak ñaan bokk na ci itam di toog ak nit ñu baax ñi ak di leen liggéeyal ak di bari looy sabbaal yàlla rawatina def salaatu tasbix ak bari looy jégglu yàlla rawatina jégglu gi ñuy wax ne moo gën ci xeet jégglu yi muy allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastatant audu bika min charri ma sanatu abuu laka bi nicmatika alayya wa abuu bi zambi faghfir fa innahu la yaxfiru zunuba illa ant ah, mooy sayidul istixfaar xam sëriñ bi wax na ne sayidul istixfaar yi man lahu qara fi nayli fi leyli wa nahaari naala zafara mu ne jéggalu googu ku koy def suba ak ngoon danga am jéggalu sunu boroom ah, kon saa boo defee ñaawteef na nga jëf jëf ju teg ko ca mu far ko ndax innal xasanaati na yuzhibna at jëf yu baax yi dañuy far eh, jëf yu bon yi moo tax ñu wax ne julli ajuma soo ko jullee booba ajuma dellusiwaat nga julli jiwaat eh, bakaar yi nga def ci diggante ñaari julli yooyu dañ la koy faral bu fekkee tuub nga bàkkaar yu mag yi nga ci def julli farata ba ci moroom moom day far ñaawteef mu ne nag ni nga ànd ak nit ñëpp ci jikko ju rafet jikko ju rafet mooy neex eh, nooy nooy rafetal say jikko ubbi sa kanam bëgg nit ñi di def la gën a rafet di maslaa di bañ di toppante ku la dokk nga jokk ko ku la xañ nga jox ko euh, ku la tooñ nga baal ko te bañ a tooñ kenn euh, tey rafetal say jëflante ak say yaram ak say teggin nee na loolu na ngeen ci sax kon loolu dénkaane boobu moom la xadis bi junj moom la doon wax ñu di ko tënk ci ngir xataay waxtu wi di yemale fii kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام على الفلاح الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعم العوالم كلها جودا وكرما وحلما لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده القبر رفيع المقام صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأعلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا حسنا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبادروا بلحاف التوبة قبل انغلاق بابها وبالأعمال الصالحات قبل فواتها واجتهدوا في الطاعة والعمل الصالح قال تعالى قل لعبادي وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال واغتنموا الحسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه alhamdulillahi hamda mu'tarifin bima awlaahu mawlaah wa ashhadu annahu allahu alladi fi samaai ilaahun wa fi lardi ilaah wa anna sayyidana muhammadan abduhu almustafaa wa rasuluhu almuqarrabu almuqtafa sallallahu alayhi wa sallama wa ala kulli man waalaah wantama bi qarabatin aw suhbatin li azimi janabihi wa ala ulaah amma ba'du fa ya ibadallah من كرمت عليه دنياه هان عليه دينه ومن غلب عليه هواه ضعف لا محالة يقينه ومن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 wa man axaba axiratahu adarra bi dunyaa alaa fa aaxiru maa yabqaa alaa maa yafnaa saari'uu ilaa magfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفقنا الله وإياكم لما وفق به عباده المخلصين آه allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammada rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah Allah يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث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 حبنا الله أكبر الله ذلك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ذاكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا allahu akbar habana Allah